moo la tee jël combat bi ndax Lamine moom ma ñemewul Lamine moo ne ñemew moom moo tax nangoo goo jël combat bi tey nag euh, gannaaw ñoo ngi toog ak Lamine dinañ waxtaan ak moom ci loolu dinañ waxtaan moom ci làmb dinañ waxtaan moom ci ni nga moom la Youssou Ndour bëree ndax avant avant combat bi open bi am loo xamante ni jotoon na ko wax jotoon na ko wax Baye Djili yooyu yëpp dinañ ci ñëw détail par ma bàyyi ko ma nuyoo ñu wéel waxtaan wi Lamine nuyu naa la. asalaamaaleykum ginnaaw yàlla biñ sante yàlla sant suñu ñaari waajur. ñu ngi sant monde entier di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen gërëm yéen waa wasaare yëpp di leen ñaanal yàlla na jàmm yàgg lépp loo leen séentu seen site bi yàlla na leen ko sunu borom defal si barke Seydina Mohamed maa ngi nuyu ñëpp rawatina waa Géejawaay euh, démb ñu gis ki nga xamante ni mooy Youssou ndu ak caatu Yoff doon bëri mhm. mais démb avant loolu sax caatu yoof dafa ne woon yaa teewoon jël Youssou Ndour combat bi lan moo taxoon nga teewoon ko jël Youssou Ndour waaw comme li ñuy wax rek maa ngi félicité Thiatou Yoff di ko ñaanal ndam li yàlla na ko jég di encouragé Youssou Ndour di ko xamal ni moom xale la ko amul lenn loo xam ne ni tey jii yàqu na ko si làmb ndax tey jii Youssou nduur mën naa ne bii moo doon dix-neuvième combat am Youssou Ndour mu ngi ci quinze victoires quatre défaites Thiatou Yoff tey jii lu ti doon tamit mooy li ma la rek ñoom ñëpp ëpp ñu koy victoire. man dama ne woon Youssou su ko sunu borom mayoon ndam si kombaa bi. leneen la ñuy wax mais dootul bëreeg ñii ñëpp mais liñ naan jaam ak pexe yàlla ak dogalam. caatu yoof Youssou Ndour nag da woon làmb joo xam ne man xam naa ne ñorul woon. ñorul woon ci nan. waaw luñ forcé la rek Youssou bëgg ko ndax caatu yoof sonal na ko di ko dëkk topp ko mais man xam naa ne du woon yoonam mais tey jii mbër di nga ko yor tamit tàggat ko mu dem ba xas-xasante ak mbërëm moroomam xëy na mu mën koo wan ni man faalewu ma la ku taxaw sama kanam maa ko mën looloo tax Youssou jël combat bi mais su doon man ak man rek du bëri. ndax man li mu li mu rawee caatu yof sax dafa bari woon si làmb bokkuñu loolu laa doon bañ du ragal du dara mais dama gisoon ne war na dépasser niveau bii mu nekk làmb war na ko mën a boole ak ñeneen ñu dul caatu yoof mhm. foofu nga tegoon say wax. Mhm. loolu nga ne ko doo bëree ak caatu yoof mhm. foofu laa ko tegoon. gannaaw bi ñu ñëwee ci loolu avant damay du ma duggagum ci làmb yi sax ndax euh, open press bi bàyyi jili dala laaj ci wàllu diggante Youssou Ndour ak Caatu Yoof xeex bi. Mhm. nga ne woon ko bugguma Youssou xeex ak Caatu Yoof mais Youssou moo la ñaan ne la même bu nekkee une minute nga may ko ko mu xeexoo ak Caatu Yoof. Mhm. mooy li ma la wax xam nga ñaari xale la ñu xas-xasantoon mhm. ndax xeex bi bëgguma ko man ba si digg géew te loolu laa ko conseillé ne ko ajal sa gàdd nga taxaw déglu ndax caat moo la soxla bàyyi kook bés bi loolu laa ko digaloon. mais moom man xamoon naa naan lu mu bon bon su doon ñaari coup sax dinañ ko weccoonte ñoom ñaar. Mhm. parce que dañoo xas xam son doon la ma waxoon foofu moo ñëwaat. Mhm. waaw. Euh, ñu gis ko biñ dugg see ci biir làmb ji yuusu ànd ak dal bi mu ñëwee def dugg ci géew bi moo ngi toog ci mukaayam. Mhm. demul dikkul ba ëllëg tuusam jot mu dem tuus su neex ñëw toogaat kenn gisaatul yuusu mu toog concentré wu moment boobu ñu ci bàyyi nee nañ yuusu mën doon gis mu daan neex a stade ambiance que nekkul dafa gis ne tey bés bi neexul moo tax mu toog. déconcentré wu ci làmb ji. waaw xam nga tey ji mooy li ma la wax rek Youssou Ndour def na li mu war a def yëpp ci làmb jox wax dëgg yàlla tuus na tuus mu neex. Mhm. bàkku na moo tax neexal na xëy na yéen ko suivre rek. toog na si cimikaay bi nag ay toogaay yàgg yoo xam ne yëpp daa nekk si ay mbiru affaire am yaa ma xam ku nekk ak la nga ko indil dik ko defal ak yooyu faa mu toog si biir cimikaayam préparé wu. loolu la rek ak boole seek di ma déglu ndax man maa ne ko tey ji làmb concentration la mhm. du làmb patak paname wala nangam ak sàngam gis nga caatu yof li ngeen ko séen sax bariwul moom it mhm. tey ñoom ñaar ñëpp mën naan dañoo nëbb ñoom ñaar mhm. bi ñu ñëwee ci digg géew bi ñu gis butéel yu bari ñu gis la jegewuloo ko benn yoon yaa ngi toog sa chaise toog concentré wu bàyyi ko ñi nga xamante ni ñoo koy sotti gàllaaj ba ñëpp sotti ba noppi nga doog ñëw andu say butéel ñu gis ne euh, butéel yi bàyyi woon na ci digg géew bi lan woon sa digganteek moom te ku ne xam na ne Youssou dalaa jege. waaw Youssou sama doom la. Mhm. Youssou sama doom la te sama doom lay nekk ba faaw koo xam ne papa Lamine la may wax. Mhm. man Youssou sequma ak moom ay affaire de entreneur ak affaire de làmb. Youssou sama doom baayam ba muy dund baay baa maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jugee. amiin yàlla na suuf si kawam. si barke Seydina Limaam ma mu yaakaar. Mhm. Youssou papaam ba muy dund da koo jël jox ma ko ba muy xale ku wax mu ne la Lamine waxal ak Lamine. Youssou du du ma entraîneur am Youssou man papaam laa. man Youssou papaam laa te am na lu bari loo xam ne du lu ñuy toog fii di ko wax gàllaa ji nag noonu la mën a ne Youssou dafa am ay xarit ñu ko bëgg. Mm-hmm. ñoo xam ne dañ koy jàppale ku su mel ne ay moodu mm-hmm. Touba ay Mbay Fall ay Samba Lawbe booy sut si xaritam yi maa ngi leen di wax mention spéciale noonu la nit nii lay àndeek nit. Mm-hmm. su daan neex ànd leen nag moom su mettee tamit noonu la mais du mës a ñànki man de su ma dégloo du mës a ñànki mais Youssou na jàpp ay xaritam mooy li ma wax ay Modou. ay Mbay Fall nga xam ñooñu li ñuy def si moom yombul ak ñeneen ak ñeneen ay Pape Mama Fall ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay cuun ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne su ma fi nekkee di lim damay juum ñooñu rek ñoo am yéene liñ ko indi yëpp xamul sax fu mu jógee dañoo ñëw rek di ko jox. Mm-hmm. muy sangoo ko takk. man xam naa dara ba la ma yoroon noonu ngeen di gis noonu lañ ma ko joxee na ko defee nii na ko defee nii te ay nit rek ñoo ma ko jox si biir làmb ji foofu ay xaritam yi hmm. ay dernière bagage am lañ ma jox ne ma téel comme te yaay mujjanteeg moom bu si nekk nga defal ñu ko nii ak nii ak nii mais làmb moo mel noonu ñàkk na ci alal ngemb na ci lu mus sa ngemboo mais sunu borom la nga gën a bëgg la nga gën a sonn la lay xañ te Youssou noonu looloo ñëw si kombaam bi bëggoon na kombaam bi fonkoon na ko lool mais yàlla mooy dogalan ah. ñun am nañ yéene am nañ lu nekk mun nañ ko def mais yàlla mooy dogal. Euh, ñu ñëw gis bi abi sifflé. Caatu mm-hmm. Yoff wàcc Youssou wàcc. Caatu mm-hmm. Yoff cokkaas Youssou taxaw di ko déglu. mais bi ñu dajantee bagaar bi. Mm-hmm. ñu gis ne Youssou da jël coup boo xamante nii la nga ko doon wax ne. bugguloo mu xeex dafa mel ni xeex ba nga ko doon bañal. ba mu ko fekk bi mu ci fekk see Caatu Yoff ñu ci bëri nag dañ ne woon Youssou bu baree ci lépp avantage. ñu ci bàyyi ne caatu yof su xeexee ci la avantage mais Youssou bàyyi na bëri bi nga xamante ni moom la ko gars yi jox favori dem fekk ci caatu yof ci xeex bi ba jël ci coup boo xamante ni nii coup bu mu warul woon jël la. rek mu mu kaawu di daw di génn caatu yof attaque accéléré ci kawam bu dóor ko mu daanu. waaw loolu mën naa see delluwaat tuuti rek. Mhm. ndax man yàlla moo ma tiim te nii may xew damaa julli ba génn dugg si bikit bi ñëw doog la gis sama buntu kër. Mhm. nga taxaw. ndax déggantewuñu sax ma ak yow. dëgg la démb léegi dama tëju benn yoon laa génnaat mooy bi may raxe ci sama oto. Mhm. ndax maa ko yóbbu. mais yàlla xam na ne billaahi wallaahi wa taalaahi su ma nee la yuusu nii la kombaam demee damay fen man xaw ma bi non dégg nga man da xaw ma sax man xaw ma ni woon sax mbëri dañuy laal ba laalaale ku ne barke alxuraan <laughs> billaahi wallaahi wa taala non Lamine Lamine ñeme woo ma yu caatu yoof dalaa dalaa jàppaale yow mystiquement lool moom ñeme woo ma ko caatu maa ngi doo gëm signature bi yow yaa gis ay signature yu Youssou Ndour lu mu ko mujjee dinaa la daan ba daanaale sa kër sa Lamine Golo caatu yoof daf ma daanaale sax mbat ngir laa booy baaxuñu booy mbëri dañuy toroxal mag quoi. wóor na mais mais mais mais comme que moo ngi lay seetaan ni ko na xaw a tekki yenn yi wala yenn sëf yi am problème xam nga rek nit moom liñ naan nit moom loo foogowul rek léeg-léeg moo lay sonal mais labit dafa doy waar man damaa doy waar <laughs> mais li nekk si làmb yëpp nee naa la sama siège boobu man nee naa la na ma toog fi ma toog xaw ma li xew. gisuloo ni Youssou daanu. ba arbitre sifflé waxuma la Youssou de xaw ma lu mu yëg si géew ba mais laaj ko ko wax naa leen nee moom xam na ne man ba léegi xaw ma li xew. billaahi wallaahi xaw ma li xew. xaw ma lan la moo waral conseil wuloo ko. non conseil wax ak moom. Youssou wax naa ak moom li ma ko roxi allo Youssou mu ne ma naa ma ne ko sa garde bi ci kaw. waa ji doxal déplacement latéral. yàgg du teel combat bi tuuti pour xool lu mu indi su indiwul nag su ñëwul nga doog a def liñ la liggéeyloo mais dañ ko waxoon diir bu ndaw rek bu gàtt mais balancement de bras yi dégg naa sax dafa ba nee naa la man. dégg naa ci dégg naa nga toll la combat Youssou Ndour Thiatou Yoff ba nii may wax ak yow man mënuma digérer defet bugguma defet chaque jour ma ko ba léegi seetaanaguma ko nee naa la man tey dama xëy ku ma gis xam ne man dama feebar sama doom a daanu sama doom sama taa bu góor moo daanu billaay wallaay am naa lu ma metti nag mais tamit mhm. yàlla baax na daal ndax li ñaan lu la bett mën la mhm. làmb ji dama ko foogul woon fii yëpp man mosuma bàyyi xel caatu yoof ni mën na téye Youssou. mais est-ce que def ngeen ci musique xaalis. man de dama part personnel moom sax damay ragal est que du jaaree bàyyi fii papa ji ndax la ma si daan def sax defuma ko ndax damaa yombaloon combat bi yombal boo xam ne jàppoon naa ne kutoo kut Youssou day ñëw daan ndax yemuñu man dama xam qualité booy bi. Hmm. xam qualité caatu yoof man jàppoon naa ne làmb ju gaaw la mais bi ma ñëwee ba combat bi des à douze deux jours di combat laa xam ne am nañ combat bi combat dese ñaari fan. laa koy doog di xam. su ma nee la moment boobu ngeen commencé sentir ne yéen ngi commencé di diis. si laa tàmbalee di jóg fu ma xam dugg naa fa. mais li ñaan mooy loolu mooy li ma wax rek te te booy dem nañ si sëriñ ma gën a aaya booy dem nañ si sëriñ yu doy waar yoo xam ne xaw ma ne woon am nañ capacité boobu mais li ma lax rek sunu borom li nga gën a bëgg la lay xañ. Mm-hmm. su bëggoon na combat déggoo ma la billaay amul dara. moo yor seen kër moom la fi papaam bàyyi moo yor yaayam yor ay. raqam billaay walaay muy jàmbaar nag te yàlla na ko yàlla jàppale. mais démb combat bi euh, li muy rëy rëy. gannaaw li may wax chaque jour rek Père Balla def na lu bëri géejuwaay. Mhm. defar na fi champion bu ne. Mhm. mais démb ñu ci bëri doon nañ xaar mbëru waay ténor yi. Mhm. doon nañ xaar ñi nga xamante ñooy représenté waay ci combat bi nga xamante ni nii defe naa ni bi Père Balla léegi bi mooy deuxième sortie Youssou Ndour ñu ci bëri doon nañ xaar waa géejuwaay mais gisuñu ci kenn. xam ma waral loolu ci combat bu toll nii nga xamante ni Youssou bu ci daanoon <coughs> mën na koo yóbbu fu ne ci làmb. Youssou defe naa fi mu ne nii tegle woon na sept victoire la tegle. Mhm. yoo xam ne yëpp maa ko yóbbu te papaam ñëwul xam nga Baye Balla gëj na si làmb Youssou. Mhm. depuis combat moo kan qualifié ba mu koy daan. Mhm. bi ko qualifié daanee la gëj. Baye Balla victoire Youssou yi mu teglaat si xaw ma sept yëpp Baye Balla ñëwul ba nii mu gaañoo. mais li ñuy wax rek ñun yàlla cërale na lim ñuy cërale si làmb. xëy na sunu borom mooy dogal rek. amateur yi ñooy du sama laaj mais amateur yi. ñooy xam nga géejawaay dafa yaatu. Mhm. te mooy li ma wax rek Baye def na fi lu fi ne. Mhm. xëy na suñ seetaanee rek ñoom la. mais ki nga xam ne mooy magam di turandoo baayam Balla Gaye 2 dafa voyagé mais bi muy dem samedi woolu na Youssou Ndour vendredi këram wax na ko lépp lu ko war a mën a ñaax. defal na ko lim ko war a mën a defal jox ko lim koy jox na ko demal. Mm. yàlla na la sunu borom may ndam. ne man mii la woo ne ma neel Youssou mu ñëw suba sa kër ga ndax boobu ñoo toog maag Balla Gaye lépp ñuy wax ci combat Youssou bi ba mu ne ma sa doom jeeg yooyu ñu waxtaan si mais li la wax rek ñun amuñu soxlawuñu kenn ñun suñu école lépp doy nañu ak Alioune Seye 2. Mm-hmm. Alioune Seye 2 maa ngi koy ñaanal bu baax nit ku baax a ngi noonu. koy gën di ñaan naan ko mention spéciale mais ku ñëw baax na ku ñëwul baax na man moom li ma ñor ba ñor mooy école de lutte Balla Gaye moo dama koy dundee à part moom à part Aline à part école de lutte Balla Gaye Aline Seye mooy am combat di ma tax a jóg si mbëri mag yi laa la wax de li may wax nii dawuma ko fii laa koy waxee. à part Balla Gaye à part écurie Balla mooy am combat mu tax maa jóg. lu waral dara nit ku la yëg rek moo la sonal. te Alioune Seye ñëpp nee nañ moom la. kon moom la nit ñu duñ ay fenkat te man dañoo dund man ma xam ko baax du léegi nii dem nga ko ñoom Youssou Ndour fekkoo ko fa. fa ko fekk. kan nga fa fekk ak Boy Niang 2. Alioune Seye 2 Boy Niang. xam nga Boy Niang école ak jaan Diane. Lirou Diane monument Guédiawaye la moom moom mu ngi ci ñëpp kooku moom mention spéciale. mais man li ma la mën a xamal. à part école de lutte Balla Gaye laa la wax à part école de lutte Balla Gaye. Mhm. école de lutte Balla mbër yi nga xam ne fa lañ nekk ku ci am combat maa mais à part loolu géejaay ba mu daj fii laa koy waxee à part école de lutte Balla Gaye mhm. kenn du ma gis ci mikaay benn mbër à part Alioune Seye nag moom yàlla moo booleek moom mhm. ñëpp xam nañ sama digganteeg moom yàlla def nañ sax sama ndijaay la ndax moo sama yaay bokk même sant saar la sant sama yaay sant Sarr mhm. sama ndijaay la mais géejaay daal comme li ñuy wax rek li si nekk yëpp sax kenn mënu koo wax ku nekk na nekk sa ruq rek liggéey quoi Euh, ku nekk na nekk soo ko liggéey lan ngay wax ni ki nga xamante ni moo Youssou Ndour sa doom lan nga koy ñaax ak lan nga koy wax. waa di ko santaat di ko gërëm xam ne teg nañ ko coono yu metti di sant booy ñaar 2 tamit nga xam ne fu ne la ko yóbbu teg ko ay entraînement yu metti suba gi moom moo doon ànd ak moom saal musculation di ko def lépp man Youssou Ndour su ma waxee combat bi sax aw ma taaw liggéey seeg moom. parce que dama jóge woon ci ay événement yu bari ak combat Balla Gaye bi ma pare si jugaat di ngénte pare jugaat si nekkaat si affaire yoo xam ne nii mooy loolu moo tax sax aw ma temps si kombaa bi nee naa la Youssou fu ma toogoon damay xam dama la jàppoon ni moo man bokkuñu su ma ko yóbbuwul sax day daal. mais mooy li ma la sunu borom moom li nga gën a kii tamit mooy loolu maa ngi koy sant di ko gërëm te naan ko da jàpp Youssou xale la mu si 16 victoires 4 defet bii mooy quatrième defe naa. Mhm. kon yàqul dara si làmb te gars yi dañoo war a bëreeg moom ñëwul wane yaa fuus wane dafa ñëw duy supporter yi. Mhm. jënd 6 bologu billet la jënd. te gis nga Assane Ndiaye li mu doon jaayee bi yi 3000 3 6 bolok la jënd 6 bolok ñaata la. xaalis la te combat bi fayuñu ko li mu jënd si billet. li mu jënd si billet. Hmm. fayuñu ko te 6 bolok la jënd kon te 6 bolok yëpp ay jàmbur ñoo ko jàppale di ñaanal ñooñu liñ mën ba jàppale yàlla na leen suñu borom yokkal loolu. Hmm. te xam ne nañ xam ne rek Youssou dafa wéet amul kenn. ñun ñii rek la am suñuy fukki dërëm ak suñuy ñaar fukk lañ koy nañ ko génne jàppale ko. même bu moom ngir jëmmi papaam. xam ne papaam dafay def lu bari fii biir géejawaay nu géejawaay mel rek ak mu neex mu naqari baay Balla la moo fi njëkk a ibbi école de lutte si Sénégal ba mu daj moo njëkk dugal rek waa des arènes biir géejawaay te keneen dugalaatu ko fi kon doo kooku su demee ba wane ginnaaw kon war nañoo mën a jàppale ñëpp di gërëm école de lutte Balla Gaye yëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu les de Elton di nuyu kilifa gi tamit ki nga xam ne ni xëy na mooy numéro un muy Balla Gaye mm-hmm. di ko ñaanal li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal mu dem defaruwaat ak jàmm li nekk si boppam ak yëpp faju ba wér ñëw nekkaat ci ay entraînement am. digganteem ak Boy Niang. Mhm. Balla Gaye wax naa leen ko digganteem mook Boy Niang Gris Bordeaux ak Eumeu Sène ñëpp la jël su paree rek ñu pare nañ ñu ngi nekk nag ci loo xam ne ni daa nekk ci boppam nañ ko muñal ba mu pare ñu doog mën a xam xamagu ba ku muy bëreel. moo tax non Boy Niang lay bëreel loolu kay moom. amul amul ma dem te ñëw moo Boy Niang la di waxaguma ko. mais mais maa la ko wax Balla Gaye ak Boy Niang ñooy bëri. non su ma ko Balla waxee ma mën see sori mais Balla Gaye waxaguma ko déggaguma combat bi ñu ne taxaw na bañ jàpp dat bii la wala dara c'est que lekk na ñeenti avance am. Balla Gaye su ko neexee ne bëreeguma léegi ma sax ren. mais moo ngi tane Balla Gaye ngi tane. Balla dem na France. non dama ne ba xam moo ngi tane. xam naa ne yaa ngi digganteeg moom dem na France pour faju ji. kon dafa feebar. non dafa gaañu si blessure blessure na tubaab yee koy faj. Balla Gaye ay feebar olof fii lay toog feebar mais si entraînement la gaañoo chaque jour wax nañ ko nit ñi blessure la boo xam ne du caaxaan da koy dem faj ji si contact la gars yi. mais lan moo tax waxu leen ko avant ngeen bàyyi ba daanu di ko. non Balla jàmbaar la ba muy bëreeg Modou Lo di bëreeg Gris Bordeaux sax doon na sooxaalee blessure bi mais blessure bi daa gën a yokk moo tax da koy faj ji benn yoon. ndax dañoo am ñoo xam ne fi mu ne nii dañuy jéem a taxaw di sonal léegi dinaa ko wax rek waxi Kéba Kanté ba rek xooyal tuur baa xooyal naan rek. ñooñu la ñuy jéem a sonal. waxi olof la Balla su ñëwaatee xooyal tuur baa xooyal naan rek am na ko waxoon wax jooju xam na ko. <laughs> billaay wallaay dinañ ñëwaat ak ñëw bu am doole. maa ngi koy wax nag nit ñi mënuñu koo gëm mais ñun lépp lu ku arrièreoon di nga ñëwaat. Ah. waaw ndax ñetti combat yi daf ñoo ñor. tàggatoo ñu tëj sant ñëpp gërëm ñëpp. Mhm. di gërëm géejawaay gi yëpp waaw. di masawu ñëpp Youssou Ndour encore une fois jàppal say xarit rek laa lay wax jàppal say xarit bula kenn tàqaleeg say xarit ñi nga maaseel nag laa la wax ñi nga maaseel àndal ak ñoom. te xam ne ñoom jaral nga leen yow it jaral nañ la jàppal say xarit bu la déglu kenn bul wax kenn sa papa mooy wax ak yow nag maa ngi nii man maay wax ak yow soo ma dégg Modou mbay Fall estafu yuusu bi yëpp Lamine Sita ñoom ñooñu ñëpp booy laay jéey booy yooyu yëpp dañoo sonn si yuusu Youssou law be ñoom ñëpp ñëpp ñëpp su ma fi nekkee di lim rek mën naa juum mm-hmm. te juum ba wóorul ñoom ñëpp jàppal say xarit ñi nga maasee ndool te xam ne ñoom ñu ngi daj ci ay coono bëgg nañ la jàppanteel ak ñoom di diisoog ñoom te xam ne lii du dara lii du dara li nekk sa kanam moo ëpp doole te ay doomu jàmbur nga doon bëreel di leen daan yaa ngi si 15 victoire xaw ma 16 kon ña nga doon daan ñëpp gënoo leen jàppaatal liggéey te xam ne yàlla baax na affaire yi moom mooy loolu dina baax maa ngi gërëm ñëpp encore une fois di gërëm Aziz Ndiaye di gërëm Pape ma Fall ak ñëpp Aziz maa ngi koy lancé appel boo xam ne mooy woo naa Aline Sall mu yorul boo nga Alioune Sall. maire Guédiawaye yorul woo naa Lat Diop yorul mënul pour ñu defaral ñu sunu école bi miir bi Balla Gaye daa war di yëngalaat école bi daa war di contact te sunu miir bi baaxul Balla Gaye mënu fi entraîner ne yi ñu ngi wax boobu ba léegi Balla Gaye xajatul école de lutte Balla ndax miir ba baaxul su fa ñëwee di fa contact see Guédiawaye gi yëpp dugg si miir bi daanu boobaa doomu jàmbur gaañ wala dee ñu ne rey nañ ne Balla Gaye xajatul foofu Alioune yorul mënul Lat Diop yorul mënul autorité yi nekk Géejawaay kenn yorul Aziz Ndiaye maa lay lancé appel man kër sa école de lutte Balla Gaye li nga fi mën kenn mënu ko li ma la doon wax rek yaay lépp ñëwal nga jàppale ñu defaral sunu miiru école bi Aziz ñëwal nga jàppale ñu defaral sunu miiru école bi defarul ñu poto yi ñu raaxaat ko mu dëgër ndax ñu mën a tàmbalaat nekk sunu école bi comme te gars yi politiciens yi fi nekk yoruñu mënuñu dem naa mairie ba ñoom ñëpp ku si nekk dem naa dem te waxuma leen sama soxla man du ma wax soxla sama bopp bu ma kenn defal dara mais dama ne leen ñëw leen ngeen xool miir bi ngeen ñëw defaral ñu ko lu si war ngeen defaral ñu ko école de lutte ñoo defar buntu école bi luñ mën ci école bi nañ ko mais dañoo dem ba amatuñu moyen nañ ñëw defaral wax naa leen mënuñu léegi xaaral ma woo Aziz Ndiaye nga xam ne moom politigul doomu géejawaay doomu géejawaay la deretu géejawaay la 100 pour cent géejawaay bi lay dund Aziz man maa la woo te xam naa ne benn yoon bii laa lay woote du ñaar te di li nga bëgg liñ bëgg di ñu ko def soxlawu ma xaas soxlawu ma dara jëndal suuf ak béton ak ciment ne ma wool maçon mu ñëw nga ni ko léegi ñaata ngay liggéey mu ne lii la nga fay maçon mu jeex mu defaral ñu lii ñun loolu rek lañ soxla soxlawuñu ne te man wax naa la ko te xam naa du ma ko waxaat dig ñu ko defaral incha allah loolu rek laa tëjee tëjëw ma leneen. Mhm. gis ngeen Aziz comme gannaaw Aziz la woo Aziz doomu géej waaye defe naa ne boo ko woowee ci géej waaye dina la wuyu si. lim ci mën kenn mënu ko li ma wax si diggante mook Balla Gaye lim ci mën kenn mënu ko li lim ci mën te dina wanewaat boppam dina defar école man leen Aziz a defaraat lii. boobaa ñu ñëw wanewaat ko rek bi neexee yàlla amul problème. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ni leen leen koy defalee tey coach lañ seet si woon Lamine di leen jox dig daje beneen yoon ak ñeneen jaa ngeen mais di sant sama doom yi nag dégg nga. Hmm. maa ngi leen di sant <laughs> bu baax mais da am koo xam ne daf maa bëgg jaara. waaw soxna jaara moom daf maa bëgg maa ngi koy sant bu baax faatoo ngi ne te gelu Youssou Ndour la de biñ daanee Youssou muy taxaw naa ma papa Youssou dañ koo ba max mu daanu maa leen di sant bu baax de jéem am nañu leen metti ñoom ñëpp uh-huh. ndax Youssou da di seen doom seen mag seen mag la ndax man maa ñoom seen mag la ñu ngi nii toog nii jàkkaar waaw mooy taaw ay raqam yaa ngi nii mais raqam yi am nañu leen metti mais xam naa dina fi ñëw incha allah ok jaajëf jaa ngeen jëf ba beneen